tàllal loxo ñëpp defoon na ko en 2019 bi ñu ko falee euh, ñu toog waxtaan dialogue national bi indi dialogue politique bi tey boo demee ba tey ñuy élire maire au suffrage universel dafa bokk ci ponk yi nga xam ne tey ku jegi mhm. ñoo ko ñoo ko waxoon mhm. président wax ne lépp lu ngeen tënk d'accord ci ma ànd ci yow mhm. yéen kon mënoon na wax ne moom euh, loolu euh, du avantage mais xool loolu li ko ñor mooy Sénégal nekk benn parce que xam na si dialogue mhm. ci la jàmm am ci dialogue ci la estabilité réew am mhm. noonu mu ko defee woon la ko defaatee woon na ñëpp ñu waxtaan mhm. xam nga tey euh, nee naa sànk waxtaan euh, day nekk ñaari ñoo koy séq waxtaan ak ku bëgg waxtaan moom ci waxam am na ñoo xam ne bëgg nañ waxtaan ndax bu nekkat diw moom mu ngi xaar si kon kooku moom mu ngi xaar waxtaan bi bu ne keneen tamit mu ngi xaar ñu xool nu ñuy xoolee. loi yi voilà procès ñu xoolaat moo tax bëgg na waxtaan. kon ah, ah. jàpp naa ne euh, am na nit ñi bëgg nañu waxtaan. Euh, la main tendue président rejeté wuñ ko. Mhm. donc nag euh, président deful benn chantage amul jot si chantage parce que nag c'est le président de tous les sénégalais. Mhm. kon tey jii moom yaakaar naa ne bu wootee waxtaan boobu noonu daal di wax ne bu ngeen ñëwee ñu waxtaanee parrainage parce que parrainage coow bi bëri woon na c'est l'occasion. ñu toog waxtaan ci xool li nga xam ne lañ ci war a améliorer ni ñu ko war a doxalee loolu ci président jublu. d'accord wàllum a nekk candidat mu ngi xaar bi non ñu waxtaanee que euh, Karim Wade bëgg nekk candidat ñoo ñëpp nag. kenn ku ci nekk loolu moom daf ci joxe woon moom. lu jëm ci amnistie bi président daf ci joxe woon kàddoom. waaw non xam nga initiative bi moo ko amoon. <laughs> non daf ci initiative bi. dañu foogoon ni sax lii après day nekk suñu ginnaaw. lii régler problème woon xalifa daf ci joxe woon kàddoom. daf na woon le ministre de la justice. na trouver les mécanismes. bi ah, la alors léegi léegi situation bi est-ce que situation bi ñu nekk nii. situation dialogue la